tey wettiliku na lislaam mësta am kuy xeex moom dong ku daan xeexal lislaam da ngay ànd ak mbooloo ki gën ci bindeef yi ba muy dem Badar 313 la àndal ki gën ci bindeef yi bi muy dem Uhud 1250 personnes la àndal ki man ci bindeef yi dañu toog leen xaar ma juróom-ñaari at ak juróom-ñetti weer tegul cin teguluñ ko cin tibbul tëddul moom rek moo mas a dem dikk nag ko dem fa nga des dem dikk moom sëñ Bàmba ko yàlla defal Lat Joor mi ngi des déqale Damel Samba Lobé des Tiwaawan Damel Samba Yaay Fall des Ndar Jéeri Joor Ndeela des Mbol Yaama Sayer Mati des Banjul Cheikhou Amadou Samba Sadio Cheikh Omar Fouti des gara Moussa Molo Sénégal euh, buñ ko dee lim duñ fi jóg sëñ Tuubaa la di Tuubaa bi waroon ngaa jëkke ci man kon doo jot ñooñu te bu nu gongi koo maag yow dootoo laal keneen mu jóge fi nag le 5 septembre 1895 gërbal leen ca ndar ñu bañ mu dikk ak ñoom ndakaaru xam ne bu daje ñoom fii du sotti mu ne na faali xayri law fi ndakaaru ku la azan li jëro wal makaaru dugg ci géej gi juróom-ñaar at ak juróom-ñetti weer xam nga lu dàq ilimaani géej ci sëñ Bàmb rek la yem géej gii nit jël na judd nañu sànni ko ci géej mu màgg xar ko waaye nag julli ci kaw géej gi diggante Dakar ak Conakry mu naan nafaali xëyri laaw fi Conakry min kuli jaali bi ilal manakiri kon bu demee ba nga xamante ni yàlla fab na lépp teg ci loxoom dara desut kon bu ñu dellu see nag ni bis ah bis bi mat naa lijjanti amidun tëbaskee jëkk maam Ibrahima daa façon yéenee ren di doomam moo ne bëgg na ko ba fa paaka teg ci put gi dëgg la waaye Ibrahima ci doomi dereti doomam la yem sëñ Bàmba ni dem mi sama deret man su ma ëhli ak dereti ku ma yaakaar walwalat ak sama dereti doom fi daawu loxoo naa ko dereti Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon tabaski jàll na tam xarit yàlla teg ay jaam ay nattu ñi mucc cen nattu yooyu di ko sant bu tam xarit passé bu ci tegu safarul xayri jaamu bi yàlla bii nag yàlla teg ko nattu yi jaam yëpp mun nangu ko bu safara passé nag mawlid rasul la ciy tegu fii ne beneen bis amaatul ci monde bi safar bii di dikk nag moo dàq tabaski moo dàq yëpp ndax yàlla nag ku foor la bis moo ne yàlla baatub màggal li mu bàyyi ko ci lamiñu sëñ Tuba moo tax boo ne yàlla laay tabaski coow dugg la moom laay tam xarité coow dugg la waaye boo nee yàlla laay màggal nag bu boobaa di nga xam ni yàlla buur bu mat la kon baatu màggal rek gis nga ni mu ci def mu ni nag nañ tàmbalee ganaar ba gëléem ganaar ba gëléem man dem naa Bagdad gis nga Usayn bu ñu demee ci yom ashura ñuy fàttali ko Ousseynou ku ne léegi ren di sa bopp ñii di jëm seen deret di sotteeku sëñ Bamba ni yàlla man teg na ma nattu mi yettaani waxam sunu wa sama noonu 285 tentatives mu jóge ci noonu ànd ki noonu jëm ci noonu jekku ay noonam nag ba noppi nag jéggal leen turan salimtu min al ahdaay turan waaye afawtu anil ahdaay turan mu ngi bisi fii nag mu dóoral ko 21 coups de canon bee ko njëkk a tagg ni ko qu'il devait se révéler comme le plus pacifique des prédicateurs de guerre sainte le plus grand facteur de l'expansion économique waaye le plus solide soutien de l'ordre public le plus zélé apôtre de la fraternité non seulement entre adeptes de même culte mais entre croyants de confessions différentes Bamba Sénégal mën ta joxe tabaski gi ndax moomu ko mën ta joxe tamxarit gi moomul gàmmu gi xam nga lan la mooma màggal gi bis boobu nag di 18 alhamdulilahi rabil alamin tur yàlla wi gën ci tur yi mbaa bu bokk ca mooy hayyu mooy kuy dund te faatu mooy 18 18 nag di barab bu doy waar kon nag bu nee ganaar ba gëléem sax boo boolee ñeenti tànk yëpp tànk yëpp 18 la ñaari tànk ganaar ñeenti tànki béy ñeenti tànki xar fukk ak ngoog ñeenti tànki nag mu nekk fukk ak ñeent nga teg ci ñeenti tànki gërëm muy fukk ak juróom-ñeent di 18 18 doon loo xamante ni ku mas a ku ku mas a ñëw ci àddina 18 la. eetal màggal gi ñëw na futtiku jot na miraasu jot na def ko ci màggal yàlla na nu dégg ndigal te dégg màggal gi dëgg ba di ko màggal màggal gi lañ am amuñ lu dul moom nañ farlu am jom te di ko waajal. màggal gi lañ am amuñ lu dul mooma nañ farlu am jom te di ko waajal màggal gi rekk moo teenu dëkk niiraanu dëgg murit bi santal bu dul ko nag dem gi sëriñ bi rek dem ci géej gi nuy dem niiraanu santal sëriñ bi màggal la dégle la digle déggal ndigal te waajal bernde ci màggal